Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan TV, les dans les besoins de la population sénégalaise. شكري لرب كريم كان سكارا وأرتجي منه في الدارين عبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكرا وذكارا وجعت وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم الرافع الوهاب سكارا rajawtu minhu taala sukura wamali warab awul yawma anni nihma qafara rajawtu an yamhuwa salati jumlata anni wa tasqirahu lidahra kuffara inni uqatibu fi lbahri muhtariban ولم يسل جل قهارا وجبارا sia xam si doy na sëriñ ay taalibeem raw na ni sëriñ kuy roy na roy ci li ma sëriñ Tuuba yaa gën ni bëgg ka wut yaa gën ni dox di mébét ya mata bëgg yaa mata wut yow ku la am falu di buur jóge nga yow faawu ci suuf sëriñ Tuuba seexul xadim doo dellu it mukk ci suuf safe nga doo sappee ka soof ñam nga wudul na bëgg a sëriñ Tuuba sant nga yitta sant lu sopp nga yitta sopp lu nga yitta topp lu yaaram bi yaa mën a jëf-jëfi góor yaa mën a sët rëkk ci buur seexul xadim yaa mën a saytu gaayi buur nga buur ak gaayi buur ñëpp ngi bég yow bu wóor sëriñ Tuuba naka ma xam ni duma góor téer ba xam ni yaa di na naa ñëw te naa jaajëfe góor saw desa tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn nii du lëf du dara yow yaa di lëf dara balay sa làqu ñun bu ñu ñu garaamaa ki xar baax wilaayaa ki mbooti xol ku leen masalam sel boo ku dul yow Serigne Touba ku dul sel boo ka dàqoo ka rekke ngëm di alke ka yàqante ka fàtte Touba ku yor te lamboo rahmatallahi yaa lewet li ngay muñ ta man ko faj amoo kem Serigne Touba Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Jolof ci may la nuy baawaane yaay géej wër waa Touba ak soldaar si la baafali commandant yi ak kàngam yi xam nan la bisuuba ku bay ànd ak Bamba xam naa ni gumboy gisi leeru jant yem na Serigne Touba kamaalak rasulullahi mooy mat ga dootu sew matuk saydul kaw nay ni lan jox Serigne Touba yi nga xam ne ñooy sëti Maam Bara Sadio ñu yendoon ak jàng alquranul karim ak xasida yi ñu wasal ci lu baree bari ñaan mag ñoo ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon su borom jot leen ci yool bi te yokk seen leer te taas ci barkeem at mu jot ñu taxawee ko ren jii bi ñu ko taxawet bokki julli di jógee nañ ci barab yu fasanti ko ñëw fi fekk si bokk yu sell yi fekk fi bokk yu baax yi nee nañ nag màggal gii ña ngi ko tàmbalee woon ci Cheikh Abdoulaye Lahat ubaydu rabbihi wa ibnu sayxihi ndax dañ daan def ajuma jot ñu dem ca barab bu Maam Bara bi wala dajee ci dëkk bi ñaanal Maam Bara ak ñafa tëdd ñëpp ay ci jamono Cheikh Abdoulaye Lahat njaboot gi sëñ Maodo nee na ñoo àndandoo ñu dem ba ci sëñ Abdoulaye ne ko noonu yi da lan daan doxale bis bi ajuma ju jot ñu ñaanal ko waaye danoo doon sàkku bis boo xamante ni ci la bokk yëpp daje ñu ñaanal ko ndax mu gën a yaatu sëñ Blaat ni leen man day maay bopp bi maay diggi maay tànk yi ànd naa ci ak yéen booba léegi nag bokk yi di ko doxal ndax béréb bii ku ko xam xam ne ay tool la woon yoo xam dañ fi daan jànge alquranul karim te sëñ Tuubaa loo ko mas a jox rek mun na tegal foofu waaye booko joxe joxee alquran mu nangoo ko ñaari loxoom ba li mu wax lépp ni alquran moo ko may ñëpp xam na ko ndax jës bul bi nga xam ne moom la taalif li mu jiital lépp mooy alhamdulilah mooy sax sant yàlla boo yàggee ci yaa rabbana yi mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo yàggee ahmadu rabbi yàlla ni xasida gi jeexee lu mu wax rek alquran la wax kon sëñ Tuubaa alquran moo ko ittiloon te wax na ne alquran moo ko yëkkati yëkkati gudul suufee ku bañ ak jiitoom moom sëriñ Tuubaa da ngay suufee loolu moo waral béréb bi béréb alquran la béréb la woon boo xam ne aw xur la woo xam ne ay tool la woon yoo xamante ni dañ ci daan liggéeyee ku tedd ki ki fi tëdd nag di maam Baara Sadio di jaamukatu yàlla di maami jëmm yii nga xam ne ñoo woote bis bi waaye bi mu wooteet waa xur weeg waa tund wi ak mbokki mbàkke yëpp ñëw nañu ndax boo tuddee maaram bu la neexee nga tudd Aysa bu la neexee nga tudd Sadio muy jàmbaar yi nga xamante ni ni ñoo àndoon ak maam maaram di ay kilifaam muy maam Sadio ak maam Baara maam Baara mi nga xam mbokkam mbokkam moo xam mbokkum ñëpp la bokk yi fi teew nag toog nii di njabootu Mbàkke dimbu te sëriñ Moustapha Ndiaté ku ko xam xam ni mooy màggalal ma maaram buñ tam xaritee ba ci ëllëg sa foofa dañuy daje muy màggalal maam maaram kon ñuy bokk yu jege sëñ Modou ngi nii toog ànd ak magam ju baax ji mu Moustapha waaye mu ànd ak sëñ Mbacke Medina ànd ak sëñ Cheikhouna ak sëñ Ahmad njaboot gi yëpp kon dañuy jébbal sañ moodu kaddu gi xam naa kaddu yi du gudd ñaari kaddu rek lay doon incha allahu rabbi kon ñu jébbal sëñ Modou kaddu gi bismillah ahousu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam almursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp bàyyiwuñ kenn di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moom la yàlla def muy kilifa jataa bi muy sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom sëriñ Ismaila moom sëriñ Mamor Diarra mooy kilifa jataa bi moom la yàlla def ñun ñi fi toog muy suñ waajur euh, di suñ kilifa ci ay di suñ kilifa ci bépp côté kon ñu ngi yëkkati suñuy kàddu ak suñu nuyoo ci turam buñ ko tuddee nag tudd nañ mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi yëpp rek euh, ci gàttal kon ñu ngi nuyu ñëpp di am mbégte bu baax ci jataay bii nga xam ne toogee nañ ko fii ci boofeel muy pencum lislam di pencum alxuraan waaye nag di penc moo xam ne ci cosaan yi nga xam ne ñooy cosaani mbàkke ci la bokk kii ñu toog ci wetam nag muy sëriñ seexu ba di kër gi di kër sëriñ sawru ba moom maam seyxu ba euh, di doomi mouhamadul amin baara sadio ba ñiy fàttaliku maam baara saajo nag muy bisub fàttaliku bisum ñaan ñaan nag dafa bokk ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addu'a silaa'ul mu'minin nee na jullit bu fekkee am na benn ngàndaay bu muy gàddu di ko waajale lu mu mën ni doon loola mooy ñaan ndax mooy ngàndaayam yonent sala salaam dellu wax ne adduwaaw ibaadu muqal ibaada nee na ñaan mooy yuurug jaamu yàlla ndax dafa mel ne suñ borom li muy loo jaam yëpp muy jaamu yàlla lañ bëgg ca biir jaamu yàlla googu mooy ñaan ñaan nag mooy nangoo wàcc sa bopp toroxlu wane ne amoo dara ku suufe nga ku xeebu nga waaye nag tàllal say loxo ki nga xam ne man na lépp àttan na lépp muy suñ borom kon loola mooy sirru bi nga xam ne moo nekk ci ñaan mu mel ne nit ki dañuy wax ne bu faatoo yëppam dog ba mu des ñett nit ki bu faatoo yëppam dog na ba mu des ñett mooy yëppam yi koy bindal aw yiw dog na ba mu des ñett ñett ya nag benn ba mooy asadaxa jaariya mooy sarax boo xam ne nit ki bi muy dund da koo def nit ñi di ko jariñoo ba tey lu mel na gas ab teen wala tabax juma wala gëmba ak garab goo xam ne nit ñaa ngi koy jariñoo beneen ba ca tege mooy xam-xam bu mu fi bàyyi ñi di ko jariñoo bind ay téere nit ñi di ko jàng di ko jariñoo beneen ba ca des nag mooy wala du saalix bàyyi doom ju baax mu di la ñaanal kon lii ñu fi dajale tey ki ko fi ki ko def mu lim bàyyi mooy ay doom yu baax yoo xam ne ñu ngi koy sàkku lay ñaan kon mbooleem ñaan yoo xam ne ñaan nañ ko fi ci bëccëg bi yàll na ko suñ borom eggale ca ña kañ koy defal muy maam Baara Sadio waaye eggale ko ci mbooleem njaboot goo xam ne ñoo ko doon def ginnaawam ba fekki ko ko ak eggale ko ci mbooleem jullit yëpp waaye ñoom njaboot gii di fi def di ko def tamit suñ borom yàgg leen fi ñu daa yàgg koo woote te yàgg leen ca si muy lu am solo donte jamono dem na ba lëj ba ñu bëree bëri bis yu bëri na ba nit ñi léeg-léeg di ko jàmbat sax waaye boo koy jàmbat ba mu yàgg da nga naan jërul jàmbat ndax nit ñoo xam ne dañoo waroon di xëy bët bu set di seetante di nemmekonte ca léegi bis yi rek lañ fi dese ci bis yoo xam ne danañ ci mën a jokk ak bokk kon looloo tax lu métti métti rek dañ koy def muy mbégte ndax jaamu yàlla lay doon maam Baara Sadio nag euh, niñ ko waxee rek moom day mbokk mbokk gi gën a wóor nag mooy mbokku pas-pas mooy mbokku diine ca ab julli woon ca borom wax ne innamal muminuuna ixwa fa asliho bayna axawaykum nee na yéen jullit yëpp ay mbokk ngeen na ngeen di yéwénal seen diggante yéwénal diggante nag mooy bëggante gi soppante gi seetante ji siyaarante ji kon maam Baara Sadio mbokk la woon waaye di mbokkum moo xam ne mbokkum dere la tamit ndax dañuy wax ne Aysa ak saajo muy Aysa kan ak Sadio kan ak seen meneen mbokk mu ñuy wax Yaasin kan ñii ñett ñu bokk ndey ak baay Aysa moo jur maam Baal Aysa mi nga xam ne mooy waajuru Mamor Anta Sali mi waajuru suñu yàq. kan ni soo xam nga ne moom lañ joxoon Ibrahima Awa mu am ci Ibra Kanni mi nga xam ne moo soxna Anta Ndiaye Mbacke mi waajuru maam Cheikh Anta ñoo bokk ndey baay kon mbokkum ñëpp la suñ maam maaram tamit dafa amoon doom ju ñuy wax Ahmadou Faribata mu denc soxna suñuy wax ndaak ndaak moo jur Mbacke ndaak Mbacke ndaak am benn doom bu jigéen ñu koy wax Astu Mbacke moom lañ joxoon maam Baara Sadio mu jur Serigne Seexu Ba ak ñim bokkal kon génnul maaram fenn génnul mbokk gi fenn kon kooku mooy maam Baara saajo mu nekkoon borom xam-xam boo xam ne ñëpp ràññee woon nañ ko ci xam-xamam nekkoon wali woo xam ne ñi maase woon ak jamono ñëpp nangu nañ ak wilaayaam waaye nag mu nekkoon jàngale at katub alxuraan di jàngale katub xam-xam ndax jamono bi Cheikh Omar Fouti di ñëw fii kero booba ki nga xam ne mooy eh, sëñ Mor Anta Sali ak ki nga xam ne mooy Ibra Kanni booba ñoom maam Baara Sadio mii moo leen doon jàngal ci jamono yooyu bañ toll ci war a samp kër ndax sëriñ bi booba euh, xam nga ne bi euh, Cheikh Omar Fouti daal di ñëw mi ngi fekk soxna jaara mi ngi ko jox sëñ Mor Anta Sali ba mu feeñaloon ci kii nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa ne war naa feeñ jamono maam Baara Sadio kon ñi maase woon ak moom jamono ñëpp nangu woon nañ xam-xamam ñëpp nangu woon nañ ak maandoom ñëpp nangu woon nañ ak jaamu yàlla dooma yi nga xam ne moom la ko suñ borom may tamit muy ñu nan cee tudd maam Seexu Ba ak maam Abdou Khadir ak ñañ bokkal ñëpp ñoom ñëpp ñiñ maase loon jamono nangu woon nañ ay waliyu lañ ay boroomi cër lañu woon ci suñ borom maam Seexu moom dañu ciy dégg lu bëri ku mel ne sëñ Moussa nga xam ne bi muy nekk fii xamoon na ko bu baax da ci nettali ay histoire ak ay kiimaan yu bëree bari yoo xam ne jamono laaju ko waaye moom ku ñëpp nangu woon ab cërëm la muy mbokkam ñëpp yàlla dogal tamit loola la lañ xam ci xur wi ndax ku leen gis xam ne nit yi diine lañ nit yi alxuraan lañ nit ñoo xam ne tamit ay gor yuy dunde seenu ñaq lañ loolu lañ xam ci moom moo doon dox ba ci sëñ sawru ba mi nga xam ne tey ci ëttam lañ toog xamoon nañ ko bu baax xam ay doomam waaye am na ci doom joo xam ne muy seexu sayxunaa ba mii ñu toogal ñun ñii fi daje ñëpp mën nañ ne jikko moo ñu fi dajale ci ab yaram nangoo góor góorlu nangoo liggéey ca li muy liggéey lépp di mu nangu ko bokk ak ay bokkam ñi xam ko ci lu yàgg tamit ndax bañ koy xam mën naa mu dem Dakar ci at yu néew la fa dem di liggéey suñ borom tamit am lu mu ko fa may ca Dakaaru xam ne ne ku ne xam ne ak lëjëm xam ne lépp waaye kenn mësu koo dégg ci loo lenn luñ ko mës dégg lam fa xamewut Dakar ak boofel gi xamewu ko jàpp ne fee mu nekk rek ca daara ja la nekk xëy tool wàcc ñëw di liggéey yàlla dimbale ko tamit la muy wut wut alal ak lam ca nekk lépp taxul mu perte ay bokkam jaxasoo naa ñëpp tey jii ci bëccëg kenn ku ne ñëw na fekk ko fi te loolu jikkoom la ndax dañuy wax ne moom nit ki mën ngaa luyee say baas dem jënd say sees defar say yëpp waaye nit ñi kenn mënu leen kon ku ñëw rek sa jikkoo ko fenn lool nag duñ man lu dul sant la ci ñaana la ci sant ci sa waajur wa nga xam ne moo la ci yor muy Serigne Sawru ak Soxna Aada waaye sant ci tamit sëñ Fallou Mbacke maanaam mi nga xam ne mooy sa waajur di sa nijaay nga nekkoon ak moom fekki ko mu tegle ci aw yoon kon ñii fi daji ñëpp muy sëñ Abdou Khadir mais Mbacke mii may wax wala sëñ Moustapha Kamal wala sëñ Modou sëñ Mbacke ñii fi toog ñëpp koo ci joxoon micro xam na ne sa jikko ju rafet ak sa jëflante moo fen loolu fi andi say bokkiti moo fi andi ñii nga xam ne say mbokki taalibe di say mbokki julit ca soo ba léegi kenn noppalul kon nag ñi ngi ñaan bis bii ñu yàgg koo def ci ñu koo fekk noonu tamit mooy sa cër ndax nun nga toll ginnaaw buñ limee maam Baala Sadio moom nga xam ne fi nga bokk soxna aada Mbàkke mi la jur tamit dafa génnul askanu maaram benn côté ndax soxna aada soxna maane Mbàkke mi ko jur Modou Faati e ko jur Modou Faati Mor soxna di doomu Ahmadou Dieng moom Ibrahima Awa moom maaram moo moo Modou soxna mi ko jur tamit soxna Mbàkke mi ko jur ak soxna Astawaala Mbàkke mi jur maam Jaara Buso ñoo bokk ndey ak baay kon génnoo askan wi fenn soxna maane sëñ Ablaye Mbàkke mi ko jur tamit moor maram moo ko jur moor maram ibra kaani ibra kaani ibrahima awa kon génnoo askan wi fenn kon nag nii nga mel noonu rek nga war a mel kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla na suñu borom guddal saw fan ko mépp képp ku fi teew tamit lépp lu doon sa yitte nga andi ko fi yàlla na ko suñ borom faj képp ko xam ne soxla nga ñëw bi ngay ñëw moo xam soxla si wéradi la wala soxla sport ak sumban yàlla na ko suñ borom saafara nangu ñaan yiñ fi ñaan yëpp suñ borom yàggal leen ba lépp lu ngeen fi war a def ngeen def ko fi xam naa niñ ko bëggoon ñu waxe ko mën naa am suñu xam-xam wala suñu xel eggu fa waaye man mi ñu doon wax loolu xam naa ne bokk yi ma yëkkati seen kàddu jox ma ko bëggoon nañ ma wax lu gën a rafet bëggoon nañ ma wax lu gën a wér lool waaye mën naa am suñu xel ak suñu xam-xam moo toll foofu waaye ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di jéggalu bu baax nag lépp lu ci dëng xam naa ñun la waaye bokk yi ñu ko doon waxoon la moom bëggoon nañ lu gën a rafet bëggoon nañ lu gën a jot kon ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa nag lool sëñ bi li ñu teg ci la ñu teg ci dara yombut xanaa fi mu taxaan ñu ji mu faraatu rek ndax li mu fi wax moom euh, xam-xam bu leer la feeñal rawatina benn wàll goo xam ne dégguma ñu ko daan waxtaanee te bëgg naa ko ci boole far nga ko waxaa mooy soxna Yacine Kane ndax dégg ñoo da nga dégg ñaan ay saak saajo rek ba fàcce Yacine Yacine Kane moo nekkoon dëkk bu rëy moo tax mbàkk-mbàkk yi ak bus-bus bëri na ay kaan ay kaan yi macha allah loolu jar leeral la ndax ñu xamaale ko ci euh, gannaaw loolu dañuy sant it ak di fàttali ne boofeel ak ndilliki dafa nekk dëkk yu yàgg ndax dañuy wax maam Maharam bi mu ñëw Mbàkke Bawol ñu ngi koy xayma 1795 boo fi ñu fekkoon ku ñu wax Moxtaar Jaay la ko moo daal di jàngale Moxtaar Jaay la ka mag ñu ne ñu ne ak guru fi nekkoon wax Kànka ñarax laan mbakke ñarax laan nee fii rond-point nekk nii fi la guy gi nekkoon ci xayma waaw rond-point bi nii ñu naan Kànka laan ak Mbàkke ñarax laan Kànka gi fara nii buufeele kaka yi kaka yi sant ba Mbàkke Mbàkke yi fara ci wàll gee kon ànd bu yàgg la euh, Cheikh Moussa Ka nag bi mu woy Sëñ Tuubaa am na fu mu koy bi ma sallallahu alayhi am na fu ko wax ne ko sa maam yu baax yi ñoo di jënd yaa di fajar Cheikh Ahmadou Bamba lu ko yàlla waajalal maanaam dafa nekk kuñ tànn di ko taan naat di ko taan ji génnul fépp fépp daal askan foo ko xool rek mbake mbusoo bi ak ñim daan ànd ak sax ñi ko wër sax ba ñi ko wër sax nekkuñu woon ay ay way ay waya waya lépp luñ ko tànnaloon la tànn googu nag moo war loon ba mu dikkee maam Maharam leeram gi feeñ ci kànk gi ndax mën na dëkk feneen waaye bu neenoon feneen dañ ko dañ koy toppi dañ koy toppi loolu moo waral maam Maharam wàcc fi maam Mor gën a fi àdduna ñu tedd ñi wàcc fi ba wax nañ ne ku tedd ki bi mu dem ci géej gi ñëw na fu ñuy wax ndilik ci Dakar gi fekk fu ñuy wax suñu Omar Ka suñu Omar Ka moom jabaat maam Baar Sadio la ndax Omar mët lañ koy wax mët Sadio Baar Sadio ñoo bokk ndey ak baay Omar Ka maam Baar Sadio ko bi mu Oumar di ñëw radiyallahu anhu ci Bawol di xeeñtu leer rek ci Ahmad Bamba ki wër na ko fu ne dem na jaar Mali jaar fu ne dem ba Makka jële fa wérdu xalawati ya jóge fa nekk xaadir jële fa tijaan indaale ko bi ñu bisee na ñëw fii nag di wër mu dikkee ba si fii ne gis fi ne xam na ni mbir waaye mu ko mu mu feeñal fi ay xar baax ba wax nañu maam Baara Sadio booba mu ngi mu ngi jàngal comme ni ko suñ bi waxee sànq ñi mu jàngal booba ku ñu wax Baara Mbaak ci la bokkoon ak Ka sax ci la bokkoon leen jox leen lim leen siyaare bi ñaa ko jox si mu futi mu téye na leen lii manqué na des na benn mu ngi ci taatu gaal ga yuux te bu nga demee neel sa nijaay dagg na xaati musalla sa xosaal na ko far ndax jinne ñi dem mu ne ko yow boo demee sa sa alliwa ji baara mbàkke laa sa wala wasi wala xaamin bi ko bind ci beqee da nga koo yàq defoo ko siid waaye saat nga def wala wasilatin nga bind xam nga donga donga da yàkkamte moom moom lu la jàpp ci xel wax ji ñëw xool alliwa ko dem wax ko suñ membre ko ba tax a xaw a tas bi mu agsee ma ma Cheikh Oumar Foutiyou ne quoi Baara yow kon fi nga jóg ajuma ji jul si màkk maa ngi yow ñu daje foofu waaw am na ku mu bokkal ne quoi yow Baara ma bokk yow lépp noo jul jee màkk téyegu ma ko mu ne ko yàlla def ci mbuus gi seen dañ teguñ ci ay fan maam Baara Sadio làqu kon ku ci wàll yi mag yi la wàll yi nag lu naqari xam la maanaam xam yónente gën yoo xam ne wàll ndax yónente moom benn melo lay mel waaye wàll yi nag moom danaa la dafa dafa transversal mën naa nekk lu ko neex lay mel ci misaal si Ahmad Bamba bu jul bu jul ci géej gi ku ko mënta gëm yaa xam suñu Moussa nee na moo ñu ko daan misaal te duñ ko duural kuy boo gëm kuy boo weddi buural waaye ni ñu ko gëm te ku gëm alxuraan yi war a xam mën naa nekk ndax yonent yàlla am na am na yonent boo xam ne baaxoon na xotti gi jàll kan la ci yonent yi Moussa moo ko defoon léegi sax ma Bamba comme wàllu la wa kumbal la am na sañ-sañu bu ko neexee mu nekkee Isa bu nekkee doon Moussa bu ko neexee doon Mouhamad bu ko nekkee nekk Nuuhin man wàllu dafa dafa moom dafa nekk koo xam ne dafa transversal maanaam lépp lay mën a jëfandikoo yonent nag lan la yàlla sant rek ca nekk sa moo gis rek ca ngay am waaye yu moom karaamam bu ko neex mu coppati loolu nag moo tax maam moo tax maam Bara Sadio ba wax nañ ne ñaari ku fi tudd léegi maam Seexu ba ak maam Faati ba Seex mu Fuuti bi mu dem dana ko ne ci kër gi mën na ko Cerno Kaw moo fa nekk bu wax Cerno nañ la mu ñëw mu téye bopp bi ñaan ko na xam-xam dañ yomb alal dañ yomb foo gis daal neefere dafa nga gis kuy daw fekk moom moom xam nga course relais kii jox ko jox ko kee kii jox ko kee maanaam ñu ko doon daw dañoo daw téeméeraat moom mu doog moom lu mu dafa àgg yow boo jógee te bu ko faat da nga am problème nit ñi xam xamuñu ba léegi xamuñu ko waaw ba léegi fi ne jàpp nañ ne ba ma alxuraan mën naa nga rek waaye alxuraan yi ba léegi toujours man la gars yi maanaam internet bëri na waaye fam daara yoo xam daara yi xam-xam la yu cosaan yoo xam ne maanaam dafa am barke aw araf kott nga jëlee ko fi bokkul nga mokkal fenn kaamel xale yi ñaata mokkal ñaata waaw loolu euh, ab ab kii la entre parenthèse la woon moo ñëwaat maanaam bu ñu ko ñaanalee ba noppi dem na ko ba amee doom mu ko tuddee far yàlla dogal mu taawloo doom bu jigéen mag ñi li ñu wax nañ kay mu tudd ko Cheikh Omar yàlla dogal mu amaat beneen doom kooku nekk góor mu soppi tur bi tudd kii Fatima bint Rasulullah yi tudd kii Cheikh Ba maam Cheikh moo nekk noonu Fatima bint Rasulullah moom moo moo nekk ndill ki moo jur ay ñoom maam Ablaye maam Ablaye mu jur sama papa ak ñoom maam Ousmane Kaak ñoom ñëpp ay ay kàngam na leen waaw boo demee ndill tàkk yëpp ca umur ca Mambaar Sadio départ ku fa ne ñu fa taal ay jàngu kenn xamu leen toll kon léegi kooku li nga waxoon ne sadaxatu jaar yi def na ko ndax ñam jàngu la ba léegi muy wëy ñu sant ka la Cheikh mu fi taxaw mu fi taxaw bu fekkee dem na mbooloo jàngal na leen man mii damay yambar yambar am ñoo xam ne jàngal naa leen kasaale kon loolu lépp nag ca moom la koy fekk moom mu ngi liggéey ba léegi loolu moo am solo loolu mooy sadaxatu jaariya te it li ci gën a neex sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu wàccee liggéey nga di ko ñaanal dañ koy xaaj ñetti xaaj benn ba ñu ko foofu mu xéwloo ko benn ba ñu dencal ko fa yàgg yàgg na nga dem yàlla na yéex benn bi ñu indi ko àdduna mu fagal la leen ku ci ëppale ko kon lu am solo la man moo ma jàmbat jotaay yi ay màggal yi ko jot ndax ndax li nga wax léegi a daje amatuñ maanaam mag ñi du fuñ luñ sos rek dafa am lu tax ñu defaloon ñu ko wallaay fekkoon màggal amut amu fi kon ñu gisanteeti ndax kon kenn tul kenn ku yaa ngi xëy na sa bopp waaw léegi nag moo tax mag ñi war leen sant jàpp seen héritage li ñu doon ci ñoom ñu ngëpp ko bu baax a baax doog wuti leneen léeg-léeg moo tooñ koy ndi li léeg-léeg day ngeen def leen loo xam dama koy méngaleeg nga yor a ganaar cuuj mu nen bay boof nga dem dàq ak cokkeer xam nga cokkeer day naaw di daal boo ko jàppee bu ngaa ñëw da fekk cuuj taaroo nga perte soo ko jàpp du xaaluñ ko léeg-léeg mu dal ñu nag maam li ñu yor suñu maam mi doon doon ko nañ ko ngëpp ñu ne ma leen ku su maam daan jat jat bu dagan te ko moo ko doo ko jàngale neen ku mën a lugg den denc ko ku mën a jat nangam yëpp lañ ko xam-xam la bu ñu yoroon ñu bàyyi ko fi léegi wër ñoo nangu arab bi ñëpp bàyyi leen li ngeen baaxut ma joxoon sama bos tubaab bi bàyyi leen li ngeen ma joxoon sama bos baaxut lu moo jàpp nag ñun bu doon suñ tubaab kon perte nañ yàgg moo tax mbàkk yàlla na ko yàlla fay loolu daal ci ci jotaay yi xam naa bëgguma guddal waaye yi may soulever rek ku fi ñëw boo dem ma ngi ñu gën a jaajuwaat xam ne li ñu doon fii suñ tubaab moo tax ñu am ko ñu gën a yar xale yi ci taalibe te it jàngal ñu dégg jamono dégg jamono du alxuraan kese rek xaala xii la rek déedéet maanaam nañ jàng adduna ndax Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon ci Matlabul Fawzayni de te commencé na si mënut xaar commencé na koo matérialiser Cheikh Abdoulaye bi mu jënd daari kaamil di ko defar génn milliard jëndi téere booba xalaatuñu woon lii man daari kaamil dama fay nekk dafay bokk naa ñu installé téere yi maanaam bépp xam-xam boo bëgg a am rek nekk na fa jàpp na ay ka ay kaamil kese ne fa de moom théâtre sax am na fa genre littéraire yëpp am na fa masrah théâtre am na fa philosophie am na fa ah yëpp lañ fa def léegi nag yootee Cheikh Mountakha la koy dencal suñu Abdoulaye day dajale waaye kii mooy defar si Muntaxa léegi nag ndax suñu Tuubaa dafa ñaanoon Tuubaa nekk madinatu tafakkuri wa tafahumi prise de décision lépp fi ame amee incha allah képp ko ànd si Ahmadu Bamba ba ba nga commencé góorgóorlu gën a jàng te jàng yeneen xam-xam yi loolu daal bu ñu ko defee dëkk yi incha allah ku dem yóbbaale ko ndax daje bu nekk daje bu ñu saaro rek moo mooy li nga xam ne bëgg nañ ko ca mos barkeelu te it wax it duñ jeexal lu duñu def ab seede si ba xëy na yéen mbàkk ngeen nekk waaye ñun ñoo moom fii muy solo pilote ñu solo pilote ah. te la ñuy wax temps booy ah. <laughs> waaw temps booy waaye leen dong lañ ko mos a xamee ah. ànd ak baayam man seet naa fenn xam fekku nee naa suñu si wax naa ba day baayam dong dafa doy wàllu te bi mu nekk xale moom baayam ku ne ànd ak mu fu mu dem yóbbu ko fa kilifa yi baax ñaanal ko am ñoo xam am bu dikkee ci yow maanaam loolu dafa am cosaan mu ngi nii du ko yeddi maa ngi daal salaam ci kanam la dugg baayam dugg ci kanamam kilifa yi mag yi fi nekk yëpp su fekkante ak baayam baayam moom yi yàlla dogal am naa am naa ndax am naa si Mansour Ka dem jàng kaam ba noppi màggal Daaru Salaam suñu Abdou Khadir ñëw maa ngi kaam boobu xale bu ndaw laa waaw lu moo dogal loolu moom yàlla ko dogal loolu ci moom ba noppi nag ni nga wax soppiwu ko ñun ñi mu ànd démb la ñun yaa ànd ak ba léegi jeune la de su neex dem naka dëkk Dakar mooy li nga xam mooy ab yar la nag ab yar la biit pare exemple la xam nga gars yi nga joxe exemple ci Sadio Mané mais gox bu ne am na exemple bu fa nekk moom mii exemple la fii toujours ndax mu ngi fi employé ay nit xal alalam moom ñëpp ko bokk yàlla te day yokk nag ndax alxuraan moo ko wax wa maa mayen foofu naasu fa yem kasu fi la ardi la alxuraan wax waaw luy lu jar nit ñi dafay sax ngir bañ a guddal na xam naa man maam xaw a mën a xaaba ban waaye daal ngeen ngeen jàppe noonu xam ne xëy na xéer la ak gàtt xam-xam waaye daal bëgg nañ mu ñëpp ne te yàlla nañ ko teewi déwén it ñaan it te kilifa gi nekk sëñ Muntaxa it université bi yàlla na yàlla na fi joxe ay diplôme yi ay maîtrise ci kanamam waaw ay licence amit yàlla na génn ci kanamam ba fruit bi feeñ ci kanamam ñëpp gisandoo ko am na loo il faut ma ñambaas ko ci nag bu ma ko mayee ñu bàyyi di wax ne suñu tubaab daa bañ jàng nasaraan ku ba ku jàng tubaab suñu tubaab nasaraan la wax dama koy leer toujours nag lu mu wax fa waylun liman naala ila nasara li kale yàlla dirhama aw ma nasara mooy lan maa ko wala nasraaniyan nasaraan mooy christianisme christiane moo am bu ci biir catholique protestant orthodoxe pas pas la suñu Tuubaa jam suñu Tuubaa du it alxuraan alxuraan moo wax ne innaa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu sallallahu alayhi wa sallam daan na lan laa fadla arab bi taqwa suñu Tuubaa du weddi yooyu maanaam xam-xam bi nañ gëm ne adduna day dox il faut ñu jàng science waratuñoo nangu fi jamono tool tey tubaab tubaab jànnatu ab catholique ku julit di góor ne fa ne fa ab gynécologue di xool soxna sëriñ si duñ ko war bañ dañoo war a jàng suñu doom jàng alxuraan par jàng tubaab maam jaara yi ak Fatimatu yi dem jox am prix dem jàngi médecine ñëw yor hôpital bi lu tax mënuñ ko dañu bàyyi léegi suñu jumaa ji ingénieur yi tubaab ñoo koy defar mais dañu il faut ñu am am xam-xam loolu alxuraan moo ko santaane euh, euh, yaa masa wala istataatum an tanfusu min ahsani waatu naa nekk waaye satali yi yëpp yu alxuraan jàngal nañu ko te suñu tubaab yi di ko ñot ba mu jege bon léegi dama jàng si bi ak man suñu tubaab murid nag xamuñu xamuñu ba léegi wënaguñu ko daal maanaam leneen la ñuy wax rek maanaam xéewal géeg toujours dañ koy romb léegi incha allah ñun dañoo teel a ñëw waa Touba di gën a neex ñun dañoo sob teel ñëw rek waaye général ñu ñëw ci kanam ci loolu moom amul benn problème waaw ñu ñaar ñoom ñu ngi jégalu ngeen baal ñax jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. nee bokki ak bokki taalibe yi. nee ngi am mbégte lool di yëkkati sunu kaddu. nee ci turu Serigne Cheikhouna Ba. nee sunu jarbaat di sunu xarit nee kaddu yi nag kaddu yi feeñal mbégte la ak i cant ak i ngërëm nee yi nu jëmee ci bokk yi nga xam ni nee teewal nan ko ci bis bi tey jii nee kaddu yooyu nag nee mooy tàmbalee ci sant yàlla subhaanahu nee moom mi ko bind def ko mu dib jullit nee boole koog Seexul Xadiim waaye boole ko ci askanu ay saak Sadio nee te muy askan woo xam ni nee doy na sëkk ab cër ndax ne ni ko bokk yi waxe léegi ne ñu ni mën na noo wax ne képp ku fi baax ci senegal ak foo fi a baaxe buñ la dàqee nga dellu ci ay saak saajo kon sëriñ bi ne ñu ngi sant yàlla ci loolu le nee di sant nag ak a gërëm ak a ñaanal magam xalifaam jëwriñam di léppam nee di xalifa maam baara mi ñuy defal bis bi nee di santit ak i gërëm di sàkku ñu ñaanalal ko sëriñ Yuusu ak sëñ Maodo ndax nee na sëriñ bi ay magam lan yoo xam ni yiir nañ ko jàppale nañ ko ca yërëm nañ ko ca nee na kon mi ngi sàkku bu baax ñu ñaanal ko ñaari kilifaam yooyu le ñu wér ñu wér lool ca yàgg ci gin ci kanamam mu yàgg seen ginnaaw ak mboolem njaboot gi yëpp nee muy sant nag bu baax buntam ci Serigne Touba nee muy Cheikh Mamadou Moutala moom ah moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne nee na teew na ci bis bi ànd ak ay rakam ba mën na noo wax ne sax fekk na fi mbooleem njabootu sëñ Fallu gi ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi loolu nag sedd na xolub sëñ Seex lool dalal na xelam lool ndax mbir boo ca nekkee ka nga yaakaar àdduna ak àllaaxira sol aw dàllam ñëw fekk si la ca mooy li nga nekk mooy li baax li nga nekkit mooy li jërë ne sëriñ bi ne kon nee na mi ngi sant sëriñ bu baax tey sàkku ngeen ñaanalal ko sëriñ bi mu yàgg fi lool te wér nee na noonu di lay dox di nuyoo ak a sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi xalifa Maam Mor Jaara yabal na fi ay rakkam ak i jarbaatam ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Seex mii nee na kasaalika naka noonu noonu lay sante bokki daaru salaam yëpp ak jigéen mag ak ndaw bokk yëpp teew nañ fi ànd ak moom bis bi ne suñu bokki bakki dimb yi nekk nuy ay nijaayam ñoom danoo bokk ak ñoom bis bi ba daanaka moom bu leen di sant ndax daanaka mel day sant boppam ndax ràññee na ci nijaayam jëlee nga xam ne tey daa sol bu mu xay xarit di baagante di leeral gan dalal gan ñi ak leen taxaw ne mi ngi sant bu baax mbokk njagalak yi ak mbokki mbusoobe yi ak mbokki kànka yi bokk yëpp sëriñ ji li ne teew nanu kon nee na xolam sedd na nee xelam dal na nee na nag moom de xam na ni lii ko bokk yi fekk see tey jii ne nee kat ne du lum leen ji nee mu ne xanaa dañoo baax rek ak yéene ko ak yiw moo tax ñu teew ci bis bi ak neen ñu fi teewe waaye nee na day Serigne seex nee na amul seenu pay yéen bokk yi waaye nag nee mu jàppe ko ak soññee ci moom ci digganteem ak njaboot gi ak digganteem ak bokk yi nee ginnaaw loolu nee mi ngi soññi boppam nee di soññi ñim sañ a soññi nee ñu gën a góorgóorlu te doollee ñaanal maam yi nga xam ni lii seenub liggéey la seen pàggu teef la nee ñu ñaanal leen bu baax yàlla yërëm leen yokk yërmande ci ñoom yokk ngërëm ci ñoom yokk leer ci ñoom te mu ne moom it moom sëñ seexu naa mi ngi soññi boppam di soññi njaboot gi ñu gën a góorgóorlu ci li fi maam yi bàyyi woon ñu fexe ba nee bu mu réere ci ñoom mujje pusa mu réer yàlla nañu ci yàlla musal ca bërëb bii kat képp ku ko xam xam ni barabu diine la barabu ay taalibe lañu kon nag moom foofu yi dey la sëñ Seex teg tànkam fa su ko yéenee teggi liggéey jaamu yàlla doon taalibe sëñ Tuubaa loolu mooy yitteem ak képp ku ko déggal ak képp koy jàppale ne képp koy jàppale na nga ko jàppale ci loolu lile ku koy ñaanalit na nga ko ñaanal ci loolu lile kon nee na sëñ jili ne sëñ Cheikh nee na mi ngi sant bu baax bokkam yi nga xam ni nee ca dale ko ci waajurum mii nga xam si wu jigéen ñi moo nekk ci kër gi soxna Adama Mbakke ak soxnay boppam yi soxna Awa soxna Xadi ak soxna Musli ak rakki boppam yi mbakki boppam yi nga xam ne ñu ngi fi ànd ak moom bis bi sëriñ Mbàkke ak sëriñ eh, Saaliwu ak seeni rak nee jàpp gi nga xam si ni jàppoon ko ci bis bi kat jàppale ko ci liggéey bi moo tax lépp yéwén kon sëriñ bi nee na sëñ Cheikh mi ngi sant bu baax rakkam yooyu le nee di leen ko seereel nee xam ne ñu ko déggal lañu ñu ko jox cër lanu ba jàppe ko seen waajur di ko xool bët boobile nee na ñoom it yal na leen yàlla taxaw àggale seen yéene ci barke Seexul Xadim ne bokk yi fi teew nag ah, ne am na ci ñoo xam ni ñu ngi ànd ak ñoom bis bi ba léegi ñu ngi teew ci jitaay bi nii nee mën na si cee ràññee sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Moustapha Mbakke ne ak sëñ Mbàkke Njagal ak nga xam ne bu yàgg ba léegi nee ñoo ngi toog ci jataay bi taaral ko kon fa alhamdu ne mi ngi sant yàlla bu baax di sant bokk yëpp di gërëm ñëpp tey ñaan tànki dikk yi ak tànki dellu yi lépp sàmbaram def ko aw yiw ci barke Cheikhul Khadim sëriñ bi nag cant yi mu doon def gën na yaatu gën naa matale waaye li ci ëpp. sëñ Muudu Mbàkke mii jottale woon na ko ah, dafa baax rek di la jox kàddu waaye lépp matan na ba noppi kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi sant bu baax tey ñaan yàlla bis bi yàlla bu mu suñu mujjug bis bi yàlla bi suñu mujjug daje te lépp lu fi def te ñaan ko fi yàlla na ko yàlla nangu jotale ko suñu maam yu baax yoo yëlee ñun ñii koy taxawet yàlla gën noo kattanale gën noo may tawféex ñu yàgg koo taxawe moom dajee mu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu de production. GP, Gabon Production, Académie Médan TV, les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.